لك شكوري على الكتاب يا مرجلا وهب لي كتابة لك شكوري على الخلوف الجلبات البر والمعروف لك شكوري على تاليفي يا معطي الأسرار والمخلوف لك شكوري على تقريبي يا ماهي العدوان وتقريبي لك شكوري ربي من لخدم لخدمة القجة خدم الخرومي شكرتك اللهم بالمداد يا راغب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا مقتفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماهيا مشقة القلاة شكرتك اللهم بالصيام يا مرحماني عن الأيام شكرتك اللهم بالقيام يا سعيدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتهرك يا مقتفا بمعجل للمهرة

rek kon tax li man bi xëy na seen lii sikkira waj bur dawal xaatira wasraf satara salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di jiite di nuyoo bi saahibul fadila di tariixatul muridiya Cheikh Mouhamadul Muntaxa Basiir di ñaan mu gudd fan lool te am gu wér ba lim nam ma liggéeyal Serigne Touba lépp mu ànd ko ngi taalibe yi di ko ñaanal suñu jëwriñ Serigne Amsatu Mbàkke ibnu Serigne Souhaïbou lim nam ma liggéeyal borom Touba lépp ci xasaay di mu liggéey ko te ànd ko ñun Maam Cheikh laaj nga laaj bu am solo muy liggéey bi kan lañ ko tàmbali liggéey bi bii mooy ñeenteelu atam ñu tàmbali ko di ko ànd ak mbokki taalibe yi waaye muy njëlbeen goo xam ne njëlbeen gu metti wan la ci ñun nga xam ne day mel na njëlbeenu lislaam ci ak mettiwaay ak njëlbeenu yoonu murit ñu ko Sëriñ Tuubaa sos ci Daaru Salaam ak metti yi ñu ko ci tegoon liggéey bi daanaka noonu rek la demee te ba fi sax ñoo ngi suñu njëlbeen jógee gun ko euh, Sëriñ Maam Cheikh ñun ñii itam mag ñi rek teg bët ba coow ji lu mu rëy rëy rëy rëy rëy duñ ko yëg ndax xam na ne mbirum sëriñ bi coow da koy yëkkati doole ba fi mu ne dëkkut ndax loolu sëriñ ci waa doon wax naan guddum xel ak gul ci am njariñ xam ko te ñëkkoo ko sëñ ci waa nee na njariñ lu mu rëy rëy rëy bala ngaa mën a xam njariñ la danga nga koo ñàkk ndax liggéey bi defe naa képp ku ñëw ba ci ñi ci bokk ba nga laaj ci dara wala nga am ci gëstu sa xol dana ci sedd ndax da nga xam ne lépp sëñ Tuubaa la ndax sëriñ Amsatu mi ñu ko àndal te waxtu jot mu di fi ñëw bi mu fi ñëwee daaw dégg ngeen mu ñu wax man di fépp fu ma yëgul sëñ Tuubaa moo fi teg sama tànk te sëñ jotaay bi ba ma fi toogee ba léegi sëñ Tuubaa rek laa fi yëg kon liggéey bi defe naa képp koo xam ne woo ko xëy na da nga jubuwut sëriñ bi ndax liggéey bi lépp sëriñ Tuubaa la sëriñ Maam Cheikh. waaw ci leeral yooyu am solo yooyu nga leeral kon euh, noonu ngeen ko dundee léegi dinaay dégg ci waxe waxekat waxe nit ñi ñu naan ay ñen ci jàng da xaside yi fonkuñ alxuraan wala lolu mom nan ngeen ko dundé wala seen tout tànk nan ngeen leen ci yare wala yeen ngi jang alcorane wala jàngu leen alxuraan ndax alcorane ak xaside man dama yaakar ne seen différence mom sori wut ndax no bok borom légui lolu bëgg na nga andin ci ay léral waaw seigne mam cheikh lolu tontu bi rek moy yi ñaar ñi ma cheikh kenn ko ci nek ab sëriñ dara nga ñi nga xamna ñoo bokk liggéey bi ñepp ay donga lañ ay sëriñ daara fi nekk ak seeni donga daanaka amatu rax ñu wala ñi ci amu rax ku si néew ci daara ji jóge nekk ci seen bërëb bi liggéeyukaay te boo leen fa fekkee dana mel ne ci daara ji ci alxuraan la ñuy xëy ci lañuy ñu gont li tàmbalee samdi ba àllarba ci alxuraan ji la ñu nekk xëy na xasida yi nag ak fësam ak bayre bi ci nekk xëy na moo tax rek ñu tuddee ñu ahlu xasida ba ñu def ne duñu jànkite alxuraan waaye ki ci gën a ndaw rek baqara ba minal jinnati wa naasi boo ko fëggalee ma tari ko kon xam nga ne alxuraan ñu ko fonk lañ bañ ne ko sax ba lañ daan jàng ak kaamil bi set soora tàmbali xasida yi ren jii bi ñu ko waxee sëriñ bi dana ñu dee leen dee leen jàng ñetti kaamil soora jàng xasida yi yokkal ñu alxuraan ji kon alxuraan mooy sunum xëy mooy sunum ngont waaye xasaay ji nag dañ koy liggéey la borom Tuubaa te duñu amuñu wóote ndax sëñ Tuubaa nee na ukkutu wala naaxilan min allawxi wa min xalamihi wa fi xuruufi lam amin xasida yi fa alxuraan jóge rek muy lawxul maxfuus wala sëñ Tuubaa tibbi xasida yi kon xasida ak alxuraan amuñu benn différence bu ñu leen mën a tàqalee kon ñun ci xasida ak alxuraan ci lañ sax ba mu nekk nii. jërëjëf sëriñ Saliou leeral yu am solo yooyu nga leeral am na solo lool mel ne képp koo xam ne am na fu mu tegoon liggéey bi bu déggee sa leeral yi dina xam ne yéen doxaleen ci lu lëndam ma ngi lacc it ndax seen liggéey bi ni ngeen jek jek créer ko seen jëm bop am da ngeen ci am digal ba nopi diko dundal ni ngeen koy dundalee wala waaw seigne mam Cheikh liggéey bi bu yeggul ci ginaaw rek bu wër safar daan jupsi dañ daan sonu lool ndax fépp fuñu deg safara sunu yeg yeg ak sunu bëgg-bëgg daan nañu poussé ci dox dem fekk ji ko nga xamne bu daan jall sax ñu bari ci mbolo mi lolu ñaan daan toy de leñu dugg ngir dox bu metti biñ doxee di dox di dox nag ba mujj amub xalaat dana ñun day safar gii ñuy dox di topp mbedd yi di dem rek xëy na mënoon nañ koo taxawale suñu bopp fii ci koñ bi waaye nag loolu suñ Tuubaa lu am murid li muy def na ci am digal Serigne Amsatu moom sëriñ Son yow ku ne xam na ne mooy suñu kilifa ñu dem ba ci jëwriñam Serigne Cheikh Ahmadou mu Cheikh Mouhamad Al wax ko ko mu laajal ñu ko Serigne bi mu jox ñu ci ndigal kon liggéey bi boo gisee ab doxinam sax ni mu gaawe nga xam ne ndigal moo ko fi yóbbu ndax defe naa bu ñu tëboon te bëgg koo taxawal du taxawee nii waaye ndigal gu ñu sëriñ bi jox ndigal te ànd kook ñun moo ñu may kàttan ban man koo taxawee taxawalee nii. kon liggéey bi loo ci gis rek ci ndigal lañ ko teg guddi ajuma yi ci ndigal la ngont ñuy def ci ndigal lañ ko teg ba ci safar gii lépp ci ndigal la muyu ci ndigal kon ci ndigal rek ci lañu xëy fii mu toll nii nii ak ni baas bi mel nii mu ñu sëñ bi woo woon dama leen soxal tey ci guddi ajuma liggéey bi fi ko bàyyi dem ndax ndigalam rek ci lañ sukkandiku fépp fu ñu woo rek amatuñ jenn yitte yu dul yitteem ba yitteem taxawee ñun amatuñ ay yitte ndax yitte sëriñ bi mooy suñu yitte moo tax liggéey bi ci ndigalam rek ci la ñu doxee ba fii ñu toll nii sëñ Maam Cheikh. kon loolu lu am solo la liggéey bu nekk liggéey bu mënul doon. ndigal moom lu ci am solo la comme ni nga ko waxee Serigne Touba dafa wax ne képp koo xam ne ndigal moo la képp koo xam ne ndigal la yëkkati mu képp ku la rawit boo jógee di nga ko jot di nga ko jot waaw ndigal ku ma tar ku ma tax a tardé boo jógee di nga di nga di nga dabe laata fon la seen ba xayri is ni daal ne lépp loo xam ne nii nit a nga koy def am ci ndigal loolu moom moom na ko xàmmee loo xam ne des koy nangu te it comme noo nga ko waxee rek ak ni nga ko leeralee nii mm, bëri na ñoo xam ne mën naa ma xamuñu koy woon nii xamee wuñ ko woon nii waaye comme ni ngeen koy dundalee ak ni mu sellee nii képp koo xam ne euh, bëgg na ci da ngeen da ngeen seen buntu wala wala wala boog daa am nu ngeen ci doxee ñoo xam ne ni daal mm, nii rek ngeen ko tënkee waaw liggéey bi daanaka ci njëlbeen ngi rek lañ ubbi bunt yëpp waaye xëy na doxiinu doxiinu xasida ak tolluwaayu xasida moo tax mbooloo mi ñeexuñu woon a ñeme nga xam ne am nañu ne ci koñ bi am yéene bokk waaye dañoo desee ñeme mbooloo mi ndax euh, li xasida def ci doomu aadama ci ak tërbiya ak tërbiya ak tasfiya aku tarxiya day feeñ ci xarkan mi murid yi ba nga xam ne daanaka ko amul leeru xol dëgg dëgg dëgg doo leen mën a ñeme ba dañ naan ñi sax dañoo tëju wala seen liggéey bi dañ koo xatal waaye liggéey bi luñ ubbi bunt yëpp la képp ku ñëw rek boole nañ la ci liggéey bi liggéey bi amuñu ci xaj amuñu ci seen képp koo xam ne sëñ Tuubaa mooy ki la ñor te nga fas yéene liggéey ñun boole nañ ci suñu bopp moo xam da bokk ci ahlu gi moo xam bokkoo ci waaye buñ la gisee ngay bëgg sëriñ bi te bëgg xasida yi ñun boole nañ la ci suñu bopp ndax suñu mbokk mooy ab murit rawatina murit bu bëgg sëñ Tuubaa kon liggéey bi ñoo ngi ci woo képp koo xamante ni yaa ngi dégg sunu kaddu wala nga di ñu seetaan ak foo man di nekk ñoo ngi lay woo ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi ñu ànd ko liggéeyal sëriñ Tuubaa. alhamdulilah kon lii mooy jotaay bi nga xam ne amoon nañ ko ak gaa yu baax yi. ñu ngi lay kii rek sa kàddu yooyu tàggatoo ak mbooloo xanaa di leen di sant rek te ñaan sëñ Tuubaa nangul ñu liggéey bi laqal ñu ko fa yàqu agut. te doo leen ñaanal rek kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu am ak wér ba lim na ma liggéeyal sëñ Tuubaa lépp mu liggéey ko ci kattanam akum xelam te ànd koog ñun taalibe yi di ko ñaanal suñu jëwriñ sëriñ Amsatu Mbàkke moom it mu sax fi dàkk ci liggéeyam sëriñ Tuubaa yi ak jëwriñam sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal di ñaanal waa ahlu de gépp ci njiital sëriñ Mouhamadou Mourtada mii ak sëñ maam Cheikh mii ma seq ñu leen ñaana ñoom itam ñu yàgg fi lool ba seen bët tegee ci liggéey bi Sëñ Tuubaa bi mu àgg fa ci kàttan ak ndimbal ci barkeb xasida yi jërë ngeen jëf dini ilal jannati lislam la rahabun yaxu janabi wa bahabil ali ubada أطلب الله أقلام الذي قدم أعمال من جهد وكل من عبدا فأخذ لدى الله أقلام الذي قدمت أعمال من جهد وكل من عبدا إن النبي قد أقلى من خدت بشرا له دواما كفن اليم والزبدات زدت المكاتب أعواما مجادة لمن به بعت لك مشتورة عددا زدت المكاتب أعواما مجادة لمن به بعت لك مشتورة عددا أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي wallaahi billaahi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu yàlla suñu borom subhanahu wa taala jul si Seexna Ahmadul Xadim kànnalawu bi karaami baay Xadim di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am mbégte di yaatal suñu liggéey loo xam ne Sëriñ Tuubaa rek moo tax ñuy ay ndaw yu ànd ngir liggéeyal borom Touba di ay góor yàlla ak i soxna di sabab liggéey bi dëgg-dëgg liggéey bi mooy sëriñ bi dafa waxoon ne képp koo xamante ni gaaw gi sa ndaw jëm ci lu baax di nga noppalu bis boo demee boo nekkee mag waxaa ne it ku dab dabal daal li nga xamante ni wersi nga ko tuub tuub bu sell jëm suñu borom subhanahu wa taala di nga texe texe gu mat sëkk taxaw nag ñun ñii ñu bëgg a ci ay ndaw jël suñu ndaw jébbal ko borom Tuuba suñu lépp lu jox ko borom Tuuba ànd liggéeyal borom Tuuba ngir jëmmi borom Tuuba di ko defee ci ndigalu suñu am moom suñu soyee ndax bu ñu xàmmee jug suñu tuwaat ci ay loxoom la ñu teg mu tettañu yar ñu nàmpatal ci xasida yi nàmpatal ñu it ci karim ci xam-xam ci yar ak teggin ñu ànd ko tout tànk yi ak suñu wayjur yi liggéey bi nekk metti na méttiwul ndax képp ku soobu ci yoon yàlla dina métti képp ku soobu ci yoon yàlla yàlla di nga dajeeg ay pakk di nga dajeeg lu diis waaye boo xalaatee ne ëllëgee waxaat akbar buñ la fayee da nga bëgg buñ la fayee da nga kontaan lu mu métti métti da nga xuus jàll ñu dëllee santaat sëriñ am sat ibnu sëriñ soyo di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal li Cheikh Mamadou Moutaxa ibnu Cheikh Bachir mu lool te ak di sant sëriñ bu baax mu taxaw ñuy doon ay ndaw di dund xasida di dund alxuraanul karim di dund borom tubaab te sëriñ bi foofu képp la nekkoon xasida yi alxuraanul karim ak jaamu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala daanaka ay wax dama ko mënewul dañuy wax ji dafa mënul ñàkk waaye sant na sëriñ Tuubaa sant bu amul ab amul yemukaay ndax nu ñu mel mooma tey mu jaar la ko ci jëm ju tedd ji sell ji muy si ñoom set indi solution yi di sant ñep di gërëm ñep nga suñu tuba gën ñoo katanal ci liggéey bi gën ñoo tawfé xal bu duñu bëgg duñu gis lu borom tuba lu borom tuba yalla buñ ko xam yalla buñ ko gis yalla buñ ko bëgg te luñ na dox suñu digg ak borom tuba yalla borom tuba dox suñu digg ak loolu darajay xasida yi di soññaat soxna yi ak ndaw yi ñu gor gorlu ci juk gor gorlu ci jaam yalla gor gorlu ci dekk man suñu borom subhanahu wa taala bayyi aduna da xamne amul njariñ lépp lay wut ci àdduna bi mën nga koo am ñàkk ko ci saase moo xam nga ñàkk ko ci zaahir moo xam nga faatu wute ko ñu ba àdduna te dëgmal sëriñ bi ndax dëgmal sëriñ bi mooy dëgmal suñu wala subhaanahu wa taala ndax sëriñ bi léppam boromam la ñu ngi jégalu bu baax ci kàddu di fas yéene doon ay jàmbaari borom Tuubaa ay liggéeykatu borom Tuubaa fii ba keroog suñuy ruu di wadd ci barke xaside yi ñu ngi jégalu baax nag ci kàddu yi dañoo mun wax waaye ñu ngi baax baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa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 jeffe borom Touba jeffe borom Touba jaaram mam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridine dade mam maam Seynabou Ndiaye borom gànjar ak yoon wi mbokk yi sama mbokki soxna yi ma ngi len di ziar bu baax di ñaan yalla subhanahu wa taala mi ñu fekkeloo at mi di safar gi yalla ñu ko fekke ay safari safar di ñaan mbolam luñ ci sabab ci lu bax diko fi def yalla nangul nuko ci jëmi cheikhul khadim di xam timit li waral li ni muy safar gi ni ñukoy def ngeen diko tewlu ni moy jëmi cheikhul khadim ndax cheikhul khadim de dafa jël dundam gep gep gep jox ko yalla subhanahu wa taala liggéeyal tamit Muhammad alayhi salam ndax cheikhul khadim mo bind ci Seydina Muhammad sept tonnes cinq cent kon kooku dafa mel ne dundam gépp jox na ko Seydina Mouhamed alayhi boo déggee ñu koy wooyee xaadimu rasulullahi coono ba mu dajoon ba jox léppam Seydina Mouhamed moo tax mu am xaadimu rasul ndax kooku moo koy bind ba bind ci moom sept tonnes cinq cent bi mu koy woy di ko woy ci xasida mawaahibuna fi ba naan ko antal karimu anal xadimu dëhran xadimu fii ka Seydina Mohamed naan ko yow yaay kan yow mi wax wax ji yow yaay kan yow mi way way wii Seexul Xadim naan ko man de maay ki bëgg may ki la way lu la kenn mus sa way maay ki la bind lu kenn mus bind Mohamed tontu ko na ko man mii de maay ki nga xamante bi lu yàlla bind man may ko ko ci gënal man Mouhamed waaye yow mii di xaadim rasulullahi lu yàlla bind yaa ma ci gënal kon mu mel na ñooñu ñaari xali def lañ bu wii togg añ wii togg reer Mouhamed ak xaadim rasulullahi kenn lañ loolu moo tax ñuy wooye c'est Ahmadou Bamba kenn ba tur woowu ci lañ ko duppee ñun ñii di ahlu xasida kennal borom Touba boo déggee ñu ne ahlu xasida kennal borom Touba mooy da jël sa lépp xaadim rasul ndaw ñii nag muy góor ñi di jigéen ñi mel na ne ñoom jël nañ seen lépp jox ko Serigne Touba muy ci seenu doxin ndax da ngay dégg ñu naan murit day sol solinu murit di dox doxinu murit di wax waxinu murit di toog tooginu murit kon dafa mel ne ñoom mu ngi ci ñoom boo leen séenee da nga xam ne ay murit a ngi ñëw suñ waxee da nga xam ne ay murit a wax wóor na Cheikhul Khadim buñ jëflante yow nga xam ne murit moo jëf kon loolu dool na tawfeex te nag lépp xasida dana la defar day defar sa xol defar sa jëmm moom mooy xasida barke Cheikhul Khadim man de bi ma dollee bi ma amee 15 ans ba léegi si 15 ans laa la wax ci lay dund xasida ba léegi loolu moo ma may sama tur yi ñu may waxee soxna bëgg Bamba boo déggee soxna bëgg Bamba ci loolu la jógee waaye xale yi de maa ngi lay xamal ne muy tu tànk yi mën naa ne la am na ci ñoo xam ne sax dencagun soxna waaye seen dund gépp gépp gépp jox nañ ko Serigne Touba ci ndigalul Serigne Hamsatou nag ak i tereem moo ñu jox bis bii nii bi weer wi teroo moo ñu jàppal fukki fan yi ak ñaar di bisu àjjuma bii kon ñun lu ñuy def rek dañ koo tënk ci ndigal jóguñu rek di rajaxu naan dañuy safar lal ci mbedd mii naan dañuy safar safar gi dafa tegu fu leer dañuy jàng xasida di jàng alquranul karim boo ko seetee li fi wàcc fii ci kaamil bëri na lool liñ fi jàng ci xasidaat bëri na lool kon nag loolu doy na taw feexu Serigne Touba te Serigne Touba li ma la wax amu ko ci noflaay ndax boo xoolee barki démbooy jaay bi ñu demee fii ci Ndakaaru ba gis jumaa jën ko defal nga xam ne Serigne Touba mbiram day gën a falu day gën a fulu tamit gis na safar yi ñuy wax ni nii leneen dana génnaat ca kanam lu bees tàq loo xam ne ci Serigne Touba la jëm ndax mbiram moom kaw rek la jëm géej la da ngay tànk sa morom di tànk te du jeex mukk baaba daa loolu moo tax mu naan soo xalamee ñaari guddi Ndakaaru ba dégg la mbër ma wax nga daal di moo tax mu ne loolu moo tax mu am masalikul jinaan loolu ko yàlla fayee barke Serigne Touba man sëñ Touba sëñ bi su ma ciy wax sama xol day tooy samay sama samay siddi day mel ne luy tàggaloo ndax damaa bëgg sëñ Touba moo tax ñu may wooyee soxna bëgg Bamba xam naa ne li ma bëgg a wax mun ma ko wax ndax li ma la ko moo am man su ma xasee ba tudd Serigne Touba rek sama xol day fees subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaam alal mursaliina walhamdulillahi rabbil